fidèles internautes étoile tv sénégal nuyu leen jaajëfal leen bu baax a baax rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun euh, saasu ne di rafetlu tamit li nga mooy euh, liggéey bu rafet rafet bi nga xamante a koy liggéey par rapport ak fi nga xamante ne mooy tamit fi nga mooy sénégal euh, service commercial étoile tv sénégal 77 477 98 46 étoile tv déplacé wu ñëw fii nga ni mooy Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñu am gan nag am gan goo rëy macha allah képp ku nga xamante ne xamu ko rek dégg na ko muy Serigne Mansour Sow Mohamed saw nekk fii nga xamante ni mooy ci diwaanu Thiès waaye balaa ñuy def dara dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak fidèles internet Étoile TV Sénégal salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. sëñ bi ñoo ngi leen di fay di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu waa kër gi yëpp fàttewuma kenn mag ak ndaw parce que kër boo fi dee dugg si bunt ba ngay jaar te ñii ñooy bunt bi. man dam fee nekk rek waaye borom kër yee nekk nii baax ba bëgg a dee yaatu nekk ay julit kii ma leen di wax mooy Lamine maa ko mag foofu may muy sama rak waaye jox ma cër nangoo liggéey tabe am yërmande beneen kër gu ji borom kër gu jigéen gi ma nga si bitti mooy faat Ba ma koy sant di ko gërëm moom tamit di sama jigéen di sama lépp bu baax di sant Papa mi nga xam ne mooy taawu kër gi di leen nuyu yéen tamit si ñëw bi ngeen ñëw ak xame bi nu gaa yi xamalee ba nu xamante di leen si sant di leen gërëm di nuyu waa Tiwaawan nga ngeen jógee yëpp ndaxte man sama wéeruwaay mooy Tiwaawan waaw. di rafetlu li nga xamante ni mooy dalal bi nga xamante ni dalal nga ñu ko macha allah balaa ñuy ñëw ci question yi est-ce que mën nañoo xam kan mooy Serigne Mohamed Sow. waaw man la as ndongolaat ndongal sëñ Babacar Si man duma ma sëriñ matuma daara ab ndongolaa lu ndaw a waaw xëy na dañ leen a booleek man rek ngeen am lu ngeen dégg ñu am lu nu waxante woon xam naa li nu waxante woon feeñ rek moo tax ngeen ñëw waaw ndaxte defe naa ni keroog ba nuy bëree defe naa ni saa waay laa jot saa laa nekkal li ma ko waxoon moom bu ma ko laajaatee ma wax ko ko mu ne ma woon nag bu làmb ji pare daanu jokkante comme que làmb ji pare na te looloo leen fi indi te ñun Modou loo rek nañu gëm Modou loo mooy sunu mbër moom nañu topp moom moo jaral lu ne mën nañoo jàpp ni ci sëriñu Modou yi nga bokk. ah bokkuma si de waaye bëri na lu ma si yoo xam ne buñ ko defee dama si am am naa si fu ma si jaar waaw waaw. alors avant combat bi eh, dégg na li nga xamante ni moom nga wax mooy bu Ama Baldé daane Modou Lo ma bàyyi yàlla ak yonent bi dégg naa loolu yaa ko wax. ma bu wér maa wax teg ko fi wér tamit musuma see am laam-laame parce que fa ngeen di fa ngeen jógee foofu nañuy duyee keroog bon demee wàccee ji kaamil dañ man am ndongo laa rek dan may jox exercice yoo xam ne yu leer la xam nga dafa am événement bu fi jaaroon le 16 février bi si sëñ Moustapha si mooy xeex bu metti ba bungu si ab Ablaye Wade bon ban ko téye keroog ba mag ñi ñëwee jàkkaarloog Serigne Cheikh relais ni ko sëñ bi ñun de tuuti ñu rayante fetal yi sax jotoon na génn mun leen ba bal tàkkee ma bàyyi yàlla ak yonent bi foofu rek laa ko tibbee ànd ak mag am na sëriñ bu ma la wax léegi ma nga tuyaawoon góor xam nga ko moom xalimaam kenn du ko laal te lu mu la wax tamit du dañ foofu laa ko sukkandiku mais sukkandiwu ma ko si xam-xam mais dañ may déey ki ma déey lan ma wax ni ma wax ko rek laa leen wax te bu amaatee ma wax leen leneen loo xam ne bu ngeen ñëwee moom ngeen di xam nga dafa am ñoo xam ne danoo waat seen barke sëriñ ak nangam ak nangam man nag dama ni la bu Ama Baldé daanee Modou Lo ma bàyyi yàlla ak yonent bi teg ko fu wér te julit la léegi fan ko teg ko fu te ki ma ko dee du fen musu moom musumaa wax lu muy luy fene xam nga jamono moo toll foo xam ne bul wane sa bopp da ngay nëbbu rek ba yàlla dem ba ni waa ji kan ndeke da doon laaxatu man ouvrier la maçon la mais bëri na ñoo xam ne tey gëmuñu ko parce que duma ma toog naan maçon la mën naa nangam ak nangam amul lu ma njëriñ saa yoo koy wax am na ku ko gën a mën waaye ñun tuwaawoon nañu wéeru tuwaawoon suñu wéeruwaay mooy sunu lépp te doon ñuy deey ma yaroo si tànk sëñ Abdou Aziz ak góor gi Seydou Wele defe naa ne war nga koo xam waaw si seen tànk la moo tax ma maîtriser kër Seydi ma Malick xam leen moo tax moo keroog ba affaire yi amee ma woo leen ni leen bu mu Ama Baldé daanee Modou Lo ma bàyyi yàlla ak yonent bi. Euh, bëri na internet yu cause bi yuy question ñu ni ba xam yow sax xam-xam la wala xam-xamu keneen la ndax bu ñu déggee bu baax da ni heure euh, dañ la koo dee nga wax ko léegi ñu bëggoon xam sax xam la wala xam keneen la. du sama xam-xam. xam-xamu keneen la mais kookoo ma woo déemi ko ni ma wax ko te lu ma wax loo ma wax billahi alazi bu ma ne woon taalal kees ma taal kees man ne naa la njabootu sëñ Babacar si rek laay topp comme ma keneen ku dul ñoom man aw ma xam-xam ab sagaru taalibe la taalibe Seydi Hadji Malick gi maa si gën a nekk taalibe mais bu doon laaj bopp tey ma joxe saam bopp du ma ko doyee dara dan ma koo dee du sama xam-xamu bopp man aw ma xam-xam déedéet waaye mën naa la booleek ak ñoo xam ne boo demee si ñoom da nga naan sa sa waay yéex nga maa waaw foofu laa ko sukkandiku. alors ci diggante Ama Baldé ak nga xamante ne mooy Modou euh, sa analyse avant combat bi ñëpp xam nañ ko te ñëpp tamit dégg nañ ko est-ce que mën nga cee ñëwaatal. waaw euh, Ama Baldé Modou Lo ma si ñëwee mooy ñun pare woon nu bu yàgg combat bi jekkoon nañu bu yàgg Ama rek a si desoon Ama fukki combat du daan Modou sëñ bi loo wax fukki combat Ama Balde du daan Modou Lo billahi al aziz bu Modou Lo pali woon sax bu ñëwee du ko daan. déet waay. ku am kilifa koy daan. Modou Lo ku am ginnaaw koy daan. sëñ bi Ama amul kilifa. non waxuma loolu ba léegi de dama ni la Modou Lo ku am kilifa koy daan borom entourage bu baaxay daan Modou Lo waaw waxuma kenn amul kilifa waaye li ma xamal daal Modou Lo damaa bëgg sax balaa le premier janvier ñëw ñu gisewaat ma wax la si lu gën a yéeme loolu. ci Modou Lo ama euh, waaw ñoom ñaar ñooñu kenn du ko si daan man maa la wax lii bu du avant le premier ba avant le premier bu nu jokkoo ma wax la lu gën a yéeme loolu ñun Modou rek la na ni topp sëñ bi. mais sëñ bi am na ñuy poser question ni est-ce que supporter peut-être li ngay ànd ak Modou Lo moo tax chaque jour lu positif rek ngay wax ci moom. barke Rasulullah du loolu dama koo xam Modou ba muy ñëw si làmb ju nu mu tuddoon Modou ba mu demee ba si biir nu mu tudd xarañ loo mu dem ba si biir tudd ñaxa faral dimanche mu demaat ba si biir tudd roi des arènes mu jë jéem bërki dem bu tudd 22 ku bu nu demee booy ñaa nga xam li lépp dëgg la le premier janvier. dama ni la bula si kenn nax ku selalul jaaroo yoon doo daan móodloo ku amul kilifa doo daan móodloo billahi alazi maa la ko wax keroog ni móodloo ñëwee làmb ba nga tàmbalee seetaan làmb ba léegi reporter nga soo gis mbër mu ko ñëwee làmb waaw loolu tamit faw ñu taxaw ci ndax am na ñu nemmeeku ñu bëri ñu ni Modou indiwul mystique alors Ama Baldé indi na mystique am na sax ay supporters yoo xam ne xawoon nañoo mer ba commencé ñibbi lu waral loolu xam nga làmb dafa am lu si nit ñi réere Abdourahmane Ndiaye Falang yàlla na yàlla yokk leeram dafa ne woon bu fekkoon Serigne Seye dañuy daan loo bon man Abdourahmane Ndiaye Falang du ma tekki sama ngemb maa ngi daanoon ba léegi maa ngi bëre ba léegi Serigne si daan ñu ñaanal ñu ngi fi xel maa ngi fi waaye doole ji ñoo fi nekkatu bëre loo mën a loo am gàllaaj am gàllaaj te mënoo bëre du sotti force nga a mën a bëre entraînement ji fonk li ngay def boo bëree ba pare Modou boo toogoon ak moom bu yéyee gerte ba pare sax day dajale xollit laxas ko dugal si otoom yàpp bu ko lekkee si restaurant bu paree da koy laxas dibiteurs yi day laxas yax yi yóbbaale mosoo dégg ni la Modou Lo day fréquenté fenn wala nangam déedéet seen kër entraîne keroog ba nu daanee Ama Baldé ci ëllëg sa la ma gars yi woon ni ma sa waaye nga entraînement nekku fa di sabouré victoire am wala déedéet parce que lamb rek kay métier te moom nan ñu booleel ni leen jàppale leen ko boobu ba léegi nag ñoo ngi koy jàppale lu nu mën waaye jàppale bi du suñu xam-xam ñun du suñu doole jàppale bi dañuy dee rek ñu indi mosu ñoo tardé la combat Modou Lo. est-ce que Modou Lo euh, par rapport ak comme li nga wax nii est que ni ni mu ñëwee yoon la en tant que mbër bu mag takkul dara ba pare gis nañ tamit ngemb gi xaw naa doy waar lool. waaw non takk yi ngeen gisul rek Modou li mu def si làmb ji. Yékini béjjën boobu mu indi si Yékini rek nga ka daan gis Modou Lo mos koo indi béjjënu keroog bi est-ce que seetlu ngeen loolu béjjën bi mu yore woon mu Yékini rek ko daan indi si làmb Modou Lo mosul indi béjjën boobu ay Senghor la daan indi mais keroog béjjën boobu nan leen indil tuuroo nañu saafara. ay ndoxu kireen rek ngeen doon tuur. wax rek xaatim noonu def si ndoxu kireen rek moom. ndoxi set na de. moo waaw mais saafara day set. boo ko jambee ba pare segg ko kañ day set caméra yee kii rek mais lépp lu nu mën def nañ ko. mais par rapport Modou Modou mañ xamoon. Hmm. Modou Lo ma xamoon dañ daan ci njaxlaf ka Modou Lo ba xamoon bu daan déparé këram nen yi hmm. takk yi pitax yi loolu lañ la Sénégalais yi gisul looloo tax ñuy poser la question. waaw xam nga dafa am ñoo xam ni làmmiñ ñu ni mbubboo kuy mbubboo làmmiñ bu noppee rafle ñun kin doon bëreel dafa mbubboo làmmiñ dañ ko doon wan ni rek moom mënuñu daan. pare nañu combat bi bu yàgg contre Eumeu Sène danoo takk Eumeu Sène mbër la waxul combat yi Eumeu Sène yëpp contre Balla Gaye danoo takk mais Ama Balde tox déggoo ma la wax Ama Balde bu ñu woon leen benn ramatu nu tax a dugg si àll bi di wattu ramatu parce que fu ñu ko fekk daan ko Ama Balde bu ko yónni woon mburu ndékki bu ko muurloo dabee nangu xaalis bi loolu nee naa la fukki jël fukk du ko am victoire keroog ba muurloo toogee ak moom mu naan ko jaraloo ma 1000 francs daa xamul li xew rek. Modou daa mi mbokk de sama waa mais mais ki nga xamante ne mooy Modou Lo ak Ama Balde ginnaaw bi ñu bëree ba pare euh, Ama Balde félicité nañ ko ñoom ñu ànd saafonte est-ce que sëñ bi ni ngay waxee nii est-ce que nii nga war a waxee. waaw no yéen journaliste yi yéen bàyyi leen loolu ama avant combat bi lu mu waxoon tegaat leen li mu waxoon ay Pape Sarr nga xam ni fii lay egg ñooñu danoo mënuñoo euh, euh, indi Modou problème. ab ay Abdou Bakhoum Abdou baaxum kilifa gu toll ni moom. Abdou Bakhoum fi ko nit ñi teg ménagère da ngay ni ay kati jóob ni nu mel xoolal kati jóob Fass la yoroon xëy suba bàyyi Moustapha Gueye dem yore Yékini mais dara ñaawul diggante ma moom ak Fass ba léegi ma nga fa ma dakaar Dakar dëkk ak waa Fass te am naa problème waa Fass moo yore woon Moustapha Gueye bay Moustapha Gueye di daan mu xëy suba ñu am problème mu ni maa maa ngi dem maa ngi leen di indil mbër mu leen jaaxal si la damay encadré Yékini Yékini nekk fi 15 ans arène moo tax ma ni la affaire yi du si du si leneen kilifa ngay am réew mi boo amulee kilifa fa nga bëgg egg doo fa egg bu la si kenn nax. d'accord kàddu yi rafet na am na solo alors ñu ñëw ci li nga xamante ni peut-être mooy euh, euh, prochain combat Modou Lo muy le premier janvier contre ki nga xamante ne mooy booy Niang mu nekk ñaari mbër yoo xamante ni ñoo bokk benn Pikine waaye tamit bëre xaw na wute lool. ñun dama lay xamal benn affaire ñun Boy ñaar daal ñu ba dabatenu suñuy faar damm ñu yóbbu ñu principal moo gënoon Ama Baldé daan ñu. waaw dama ni la ñun booy ñaar daan ñu ba damate suñuy faar ñu yóbbu ñu hôpital dinu tabax moo gënoon Ama Baldé daan ñu. ma indi la benn version tibit le premier avant le premier le vingt huit boo ma woowee wala ma ñu gisee ma wax la li ma la waxoon lu ko raw laa lay wax ak fu mu mën a ngémbool ak ñoo ngi koy xaar. déedéet Boy Niang lu ne dégg naa ko naan nangam ak nangam nangam ak nangam affaire yi du foofu de yàllaay maye ndam te yàlla am na ñoo xam ne dañuy communiquer moom lu ñu ko laaj mu jox leen ko bu si kenn nax am na ñoo xam ni du ñu tooñ seen borom du ñu wax seen moroom lu ñaaw seen kàddu du dee du jamono moo toll foofu lu ñuy wax du dañ lu la bindal jox la takkal nee naa sëñ bi Modou Lo dafa am ginnaaw am entourage waa Pikine yi kenn du ko si daan. kenn du ko ci daan. kenn du ko ci daan nee naa la combat moom booy ñaan nan ko préparé boo ñëwee laaj ma fii ma wax la si lu leer. am na ay écho yu ñuy dégg ñu ñuy móodloo waa Pikine ko bàyyi ci làmb ji bu leen raafalee day bàyyi loo ñu mën a indil ci loolu. foofu moom eggagum ma fi parce que Modou moom neexul a xam dafa noppi Modou dafa yaru Modou dafa teey gis nga sëñ bi nit ki ni mu mel lëg nangul ko gàtt gudd noppam ma gàtt genn am ak mën a dawam. Modou amul ku mu ni bu ma paree si waa Pikine yi damay bàyyi déedéet Modou lambay métier mais est-ce que du risque ci moom mu jóge ci ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène pare jóge ci Ama Baldé ñëwaat duggaat Pikine ci Boy Niang est-ce que waa Pikine loolu dinañ ko seetaan. waa Pikine amul lu mu dul seetaan waa bu fekkoon bëre wax la waa Pikine ñooy jël ndam li Modou dañ koo yar am na yoo xam ne du xam nga Modou Eumeu Sène ne woon na ko fi ki juutal maako daan mu ne ko yow maala daan combat ba metti loon fu mu mujj kawoo ko dóor mu daanu log làmmiñ bi bu arbitre bi gaaloon mu de wax day sell wax day rafet Ama Baldé jàkkaarloo moom naan ko bu ma xamoon ni nga mel jaraloo man ñaar téeméer Pape Sarr mi nga xam ne dafa kay ni naan ko boo noppiwul dinaa ñëw seen kër Pape Sarr lu mu mën a waxal Modou Lo Pape Sarr kanamam gu dang boobu mel ni karbet mel ni samay kanam nga xam ni bokkul si dara na jéem dafa am ñoo xam ni danoo war a tegu si siraat mu saxeen sëñ bi ñun ay julli nan dafa am kàddu yoo xam ne ñu sunu diggante dangay ngay xool fi ngeen déplacé ñëw ba fii di ma eh, yar ak teggin moo ko wara bu ngeen ko amul woon du leen ko jaral ak fonk seen liggéey liggéey ni ngeen fonkee seen liggéey jógee ba Tiwaawan ñëw kees moo loolu noonu na fenk eh, làmb ci amul lu lenn lu muy bàyyi amul lenn lu muy seetaan si gars yi alors li nga xamante ne mooy euh, deux cent pour cent yi tamit mi ngi indi polémique ndax ki nga xamante ne mooy Ama Baldé depuis bi mu daanoo ba léegi gars yi nee nañ sax am na ñu naan loxo booy ñaa génnu ci loxo Eumeu Sène génnu ci ba mu jur polémique ba nga xamante ne mooy open presse Eumeu sax mujj ñu koo def point de presse la mujj def par rapport ak coow loolu sa xalaat sa gis-gis. waaye Pikine yàgg na ci loolu Pikine ni ñu bëggee continuer du ana Eumeu Sène fu mu jaaraloon ak Tyson. ñoom euh, kër ga loo goo xam ne kër guy werante la rek kër guy werante baaxul ñoom loolu la booy ñaar pour mu yàqal Ama Baldé ban njëriñ la ko amal Eumeu seen bëri naa euh, kële ba pare Eumeu bu doon sagom euh, billahi bu doon sagom Ama Baldé daan Modou Lo moom lu waay waxal wax ko laa biiram ak yaruteem Eumeu bu doon sagoom Ama Baldé daan Modou Lo Eumeu ku koy fay loo xanaa sëñ bi man duma la duma ba pare gis ku ma lay fayul may ànd ak kooku wax dëgg yàlla nga duma ma ba kawoo ma ba ma ma loog sama lamiñ bu arbitre ma dee ma am keneen kuy jàkkaarloog yow may farak yow xanaa bon duma garmi Eumeu Sène garmi la booy ñaar tamit loolu tax ko jog booy nee nañ booy ñaar deful benn soutien ci combat bi ñëwul stade et cetera et cetera. booy ñaar ba muy toll si tolof tolof ku def si moom soutien booy ñaar papam dëggool da daan luye ak yaayam booy ñaar jom ak ñaanu waajur moo ko eggal fi mu egg li ma lay wax nit ki bu ko seedeel ko lu rafet ci moom li nga xam booy ñaa papam dégool ak yaayam dañ daan luye booy ñaa am jom di jàng di def lu ne pour soutenir papam ak yaayam yàlla ubbil ko buntu xéewal gi muy dimbali ndeyam ak baayam bu kenn yàqal nanu bàyyi jàmbur bi jàppalewul móodloo jàppalewul kenn xanaa duma ma jàppale nit duma ma nit di la jàppale ndax ëllëg ak si dana xam feem yi ma lay jàppale équipe bu nawetaan sax boo koy sangat entraîneur ba da koy dàq président Baraka Faye teew xam nga lu tax ngay génne entraîneur ba booy defal joueurs yi say seeni bien entraîneur bi mën na démissionner déwén dam beneen équipe wax say bien ni nga koy sangee dafa am loo xam ne du sport loolu mënul ne. ñu nemmeeku nga xamante ni peut-être mooy ba mu nekkee ci géew bi gisuñu fa tamit benn nga xamante ne mooy magu Pikine bu fa nekk wala boog buñ koy gis benn lay doon wala ñaar euh, seetlu woo loolu wala sa gis-gis. kan si ama. entourage am ndax gis nañ entourage am bañ demee ci làmb ja jaxasoo na fii ñii di tëgg fii ñii par rapport ak Modou Lo ni mu calmé ànd ak Papis Kassé xam euh, am esprit tranquille Ama Baldé gisuñu ci moom loolu. gis nga sax li ma la wax rek gis nga Modou Lo sëñ Babacar si sunu sëriñ yal na yàlla yokk leeram taas ñu si barkeem kenn du moom nee na gor pire du soppeeku Papis ak Modou loo Papis ak Modou Lo ba nu xamante ba léegi. musu papis musul soppeeku si Modou Lo Modou musul soppeeku si papis keroog ba ko Balla Gaye njëkkee daan dañ ne Modou xale yu ndaw yi di ko topp Modou ni leen ñii laa daan àndal di am victoire diggante Modou ak papis xarañ loo kenn mënul leen teqalee kenn moom loo bu amoon ak papis problème sax ñun ñoo mere Modou keroog keroog ba ji gis nga ñu sànni Modou Lo papis da koo mbëk mu jàll kan moo ñemee def rool yi ban risque papis guddeeg bëccëg mu ngi si Modou Lo papis ko Modou jaral jaralul kenn entourage Modou Lô loolu ak entourage Ama Baldé bu leen tëkkalee bokkuñu bokkuñu bokkuñu de Modou Lô nee naa la dafa yaru dafa tey dafa am kilifa te fu waxtu julli jotee bu doon entraînement bu waxtu wi jotee mu bàyyi ko julli ci suuf se bu fa nekkee fu cinq heures jotee mu jàpp ji fu deux heures jotee mu jàpp ji. sax dégg naa ba tàkkusaan jotee dafa ñëw dalal si yaadaam julli. déggoo li ma la wax sa waa ji Moodu neexul a jam naa ni Moodu neexul a ñi si des ni la nga golo nanu rek garab gu nu leen neex wékk ñooñu moom waxuma seen sàkkoo sa golo moom garab ko neex la koy wékk ñooñu moom waxuma seen wax moom. macha allah alors am na solo euh, baax a baax ki nga xamante ni mooy euh, Mouhamed Sow moom lañ dalaloon fii nga xamante ni mooy ci plateau Étoile TV Sénégal di partager moom waaye tamit di. waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy làmb mu génnee xam-xamam génnee li nga xamante ne tamit mooy xalaatam ak gis-gisam alors bu ñu ñëwee tamit ci combat fu ñu tëjee rek mooy ba tey ñëwoon nañ ci sax mais dañ ciy gën a dugg rek mooy ci komba Boy Niang Ama Baldé incha allah le Boy Niang lan moo lay xaar wala lan mooy xaar Modou wala lan mooy xaar Ama Baldé euh, moo euh, Boy ci combat waaw combat la xam nga Boy ña ni Modou Lo di bëree rek lay bëree mais Modou da ko gën a xarañ. ëpp ko technique mais booy ñaa mbër la booy ñaa moom dafa am ñoo xam ne du nu mbër ñoom bu leen wax ci weesoo rek jeex na mais booy ñaa moom mbër la waaye fépp fu nu jaaraloon bëri yi daan fa jaar booy ñaa. Hmm. pare nanu ba pare incha allah. Modou euh, booy ñaa mën na xeex de. ñun ku mën a xeex rek na du bëgg Bombardier mënul xeex fu ne jaar nañ ko fa ku mënul xeex ak làmb ji ko si mënul xeex Gris Bordeaux Gris ku ko daax xeex coow la fi nekk rek Gris kenn dàqu ko xeex. fu nu jaar ak giri noo xeex ñun mus ñoo dem ardo kenn mus ñoo gaañ xoola amaa li muy gaaw gaaw gaaw bët bi newi na ñun ku ñun rek ñoo fi def cinq kawo dóor mu daanu cinq yoon ñun donga ko fi def Modou Lo donga ko ko fi ama euh, Eumeu mi ngay wax ku ko fi daan si gaay ak kan moo ko fi dóor kawo mu dem amul amul Modou Lo moo fi xeex but bunt dóor la nga xam ni dóor na la Ama balda ba mu ñëwee ba nu ko dooree dafa dellu ginnaaw dem dem yoonam mm-hmm. waaw. d'accord euh, nga xamante ni mooy Mohamed ñuy kontaan ci yow bu baax a baax euh, lan ngay tàggatoo ak fidèles internet Étoile TV. Ah, di leen sant di leen gërëm di sant waa kër gi li may wax rek mm-hmm. sant Lamine Ba mi bis ne mooy la maa ngi leen ko doon wax léegi kër gi dëkkuma fi waaye ñu baax a ngi sëñ bi ñu jullite ñu yaarame kii may wax bu la xamoon tey rek nga di yéex naa xam waa ji man du ma euh, ragal nit diggu ginnaawam sëñ sëñ Abdou ñu ko waxoon du ma lebal kenn ngërëm man ku ma defalul du la gërëm amoo euh, waxe man duma gërëm ku ma defalul dara waaye ku baax ku yaru ku tabe dimbali ay mbokkam dimbali tamit ñu dul ay mbokkam ay jaamburu yàlla man mi wax ak yow si kër gi laa ne yenn saa yi dafay ñëw yëkkati dara yëkkati jox ma mënoon na ko ci bañ a fekk mënoon na ni kii sequma ak moom dara bokkuma ak moom dara feebar naa fi ñu bindal ma ordonnance keroog ba mu xëyee xaalis la ma fekk si néeg ba ma ne jëndal ma ay banaana jëndal ma yëpp jox ma jox ma xaalis di sant magam tit Faat Ba di sant waa kër gi yëpp ak Pape Ba mi nga xam ne mooy taawu kër gi di leen sant ñoom ñëpp di leen ñaanal gudd fan ak wér li may ñi lay ñaanal daal mooy waa kër gi kër gi ma ne yàlla na leen yàlla dafal jàmm ak salaam sàmm leen sàmm seen njaboot yàlla bu seytaane dugg seen diggante yéen tamit yàlla na leen yàlla dafal jàmm suturaal leen ba seen mbir mi nekk télé bu mag a mag si barke yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, di rafetlu ànd bi ñu àndoon ak moom euh, Mouhamed Sow la woon fii yi nga xamante ni euh, mooy Thiès kaay waaye ba tey rek service commercial Étoile TV 77 477 98 46 77 679 30 15 tey nag sama waa ji ñëwul ki nga xamante ni mooy Pape Seye dafa am tuuti occupation rek loolu moo tax ñëwul waaye moom la ñu gën a miin ci li nga xamante ne mooy ci làmb ji Pape maa ngi lay nuyu maa lay ziar baax a baax a baax di nuyu ki nga xamante ne moo nekk ci caméraman bi ndongo mbub réalisation bi tamit Assane Meng ak Gassama Étoile TV woon Cheikh Thiam micro bi jërë ngeen jëf